waaw su may wax doo déglu nga. amoo respect waay sa ñaawaay. kan moo ñaaw. ne ma doo doobu rek loolu lépp dëgg la waaye soo amoon ku mel ne ma doo doobu rek sa ñaawaay da nga war a am resto sénégalais yaa ngi lay yow dimbali ma waayo waaye liiru mi xanaa moom euh, ça va pas mais liiru ça va pas kay liiru nag liiru il faut non il faut arrêter yàlla waxal ki sa morom waxuma kan mooy ne compte pas arrête a ba nga doonee liiru jàll àdduna tas. wuy ma yow waay yow. sama yow kay fi mu soxna si yow laay waxal. non non sama benn bu nekk ci kër gi. sama rakk sama xarit. waaw bëgg ma te yàlla tax. Mm. nekk taalibe nekk koo xam ne soppeeku mëkk man li muy def non non non. kàlla kàlla muy ki Saliou Khoule. sëñ Saliou da bàyyi ba ñuy tëj. non dama dama koy nuyu am na dama jógee bay fii te nuyu ma damay am bàkkaar ndax Saliou defar na ku ne